dal leen ak jàmm ci xibaar yi tàggat yaram yi. Sen Sport 221 dañuy doore tënkum xibaar yi ci coach allemand bi di Jürgen Klopp nekk foofu la ci Liverpool mu ngi xam ne dina def lépp lu mën ba téye ki ngi ko rotal gannaaw gi nga xamante ne doxoon na diggante ñii di waa Liverpool ak Aston Villa te kii di Sadio Mané dugaloon benn bal ci yooyu lay jogante mu ngi xam ne ne dina waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo di dirigeant wu Liverpool ñu def lépp lu ñu mën ba téye Sadio Mané ak Mohamed Salah rawatina ki nga xamante ne moo di Sadio Mané mi nga xamante ne ñii di waa Real ngi koy jamono Sadio Mané ràññeeku woon loolu ci yooyu la jongante ba taxoon sax ñu tànnoon ko mu nekk homme du match muy juróom-ñeenteelu yoon bi nga xamante mu ngi koy am ci saison 2019 2020 bi di Sadio Mané di nekk homme du match ni wax nañu ne dugal na lu toll ci ñaar fukki bal ni ki ji foofu la ca Liverpool muy ñetteeli at bi nga xamante ne kii di Sadio Mané lu mu gàtt gàtt dina dugal lu toll ci 20 ba lu ko ëpp foofu la ca Liverpool 165 match moom la Sadio Mané joué foofu la ci Liverpool dugal lu tor ci bi ak 34 passes décisives jaloore yii tax ba ki nga xamante ni moo di seen coach bi di Jurgen Klopp ne dina def lépp lu mënta dina waxtaan ak dirigeant yu Liverpool ngir ñu téye international sénégalais bii di Sadio Mané. origine sénégalais bi ñuy wax Daniel Thiour nekk foofu la ci Allemagne wax nañu ne tànn nañ ko ngir mu jiite équipe bi ñuy wax Hamburg. nekk ci deuxième division bu Allemagne moom Daniel Thioune wax nañu ne moo war a nekk premier entraîneur noir bi nga xamante ne war na entraîner foofu la ci division professionnelle bu Allemagne moom Daniel Thioune toll ci 45 ans nekk origine sénégalais comme nañ leen ko waxee oppoñ nañ ko maanaam tànn nañ ko ngir mu war a jiite équipe bi ñuy wax Hamburg nekk foofu ci deuxième division bu Allemagne. ba tey ñu wéy ci xibaar yi international français bi ñuy wax Alexandre Lacazette di évoluer foofu la ci Arsenal jamono yi wax nañu ne mu ngi ci yoonu génn football club boobule gannaaw bi nga xamante ni dafa ñàkk place am ci loxoy kii ñuy wax Edin Nketiah moom international français bi toll ci 29 xibaar yaa ngi xam le ne ñii di waa Juventus Atlético de Madrid ak Inter de Milan jamono yi ñooy candidat yi taxaw ngir jënd ki nga xamante ni moom la ñuy wax Alexandre Lacazette kii di Ivan Rakitic gannaaw bi nga xamante ñu ngi doon fësal ci xibaar yi ne dafa war a génn foofu la ci Barcelone gannaaw bi nga xamante ne benn at képp moo des ci li nga xamante ne moo di contrat am Atlético de Madrid ak Séville gi nga xamante ne foofu la jógee woon jamono yi ñu ngi taxaw teemu ngir mën a amaat ki nga xamante moo di Ivan Rakitic gannaaw bi nga xamante ne la jógee woon dem foofu la ci Barcelone ñii di waa Séville ubbil nañ ko bunte Kylian Mbappé nekk international français di évolué foofu la ca Paris Saint-Germain kayiti xibaar yaa ñuy xamal ne ñii di waa Paris ñi ngi def ay pexe ngir yokk li nga xamante moo di contrat ba mu des foofu la ci Paris saint te yokkute contrat boobu léegi bu fekkente am na kii di Kylian Mbappé njëgam dana egg dem ba ci 280 millions euros 280 millions d'euros mooy njëg yi nga xamante mooy génne kii di Kylian Mbappé foofu la ca Paris saint bu fekkente UEFA di kuréel gi nga xamante ne ñoo ngànk football bi foofu la ci Europe dinañu amal am ndaje ci àjjuma ji ngir amal li nga xamante moo di tiraasu quart de finaalu Ligue des champions yi lii nag am na lu ko jiitu mu di waxtaan bi nga xamante ne war nañ ko amal ci alxames ji ngir waxtaanee équipe yi nga xamante dañ amoon ay match retour ci li nga xamante ne moo di huitième de finale yi ndax dañuy bàyyi équipe yooyu la ñu fekki seeni adversaire wala dañuy nga xamante ne moo di décision bi ñu war lool lañ leen amaloon ci tënkum xibaar fii ci kër gi mën bàyyi seen i commentaire te ngeen like suñuy vidéo te bu leen fàtte abonné ci seen bi di seen sport 221 the best sport channel